waaw jërëjëf bon boo waxee légitimité euh, ah non tout citoyen boo xam ne mm-hmm. remplir nga les conditions euh, man nga présenté wu. Mm-hmm. je crois que loolu la légitimité duñ ko wax mais dañ naan rek citoyen boo xam ne daal remplir nga les conditions. pour mm-hmm. participer à ces élections parce que c'est un droit. Euh, boo ko remplir da nga ciy bokk. je crois que def na li mu war a def. tout à fait il y a et 41 fi ñu toll ñoo taxaw ñeneen ñi comme d'habitude ils ont aujourd'hui un délai pour pouvoir corriger ou apporter aussi des des des compléments. Euh, de documents pour pouvoir participer à ces élections. Mhm. tout à fait mais quand même euh, mënees nañu taxaw ci poids électoral bi disons ci yenn liste yi nga xamante ni gis nañ ko ñoo xam ni peut-être euh, ràññeewuñ leen bu baax tey ñu taxaw samp seeni coalition daal di lëkkaloo peut-être disons. pour gën a fës ci kanamu askan wi su ko defee ñu xaw a peser comme je l'ai dit tantôt am na ci ñoo xamante ni seeni poids des na donc tey ndax jàpp nga ni ñooñu mën nañ am dara ci législative yi ñu jëm mais tontu nga sa bopp ci mm. question bi seen poids des na ça veut dire que mënuñu am dara. Mm. faut pas se la face il y a de ces listes il y a de ces têtes de liste méconnues du du du du peuple mm. euh, pour ñu am dara dina metti mm-hmm. parce que configuration élection yi ñu dem dafa nekk ay élection yu yu capital. tout pour le Sénégal. Mm-hmm. Euh, capital pour l'exécutif. Mm-hmm. parce que tey il faut ñu am majorité à l'Assemblée pour pouvoir bien n'asseoir et dérouler. Euh, le programme pour pouvoir transformer ce pays. Capital pour l'opposition parce que à partir de ces élections il y aura beneen configuration politique. Il y en a qui vont disparaître. C'est normal et il y a d'autres aussi qui vont battre de l'aile pour pouvoir exister. moo tax élections yi doon ay enjeux yu majeur pour euh, destiner réew mi. ndax ndax dina yomb li ngay wax nii surtout bu ñu gisee euh, parti Pastef ki nga xamante ni moo ko jiite nekk tête de liste bi di Ousmane Sonko face à toutes ces coalitions. mais dina yomb parce que aussi je crois que li mathématique rek soo ko jàng li naan mm-hmm. prolongement par continuité. Mm-hmm. la ñuy am incha allah parce que metti woon na trop sénégalais taxaw. Mm-hmm. li si bari woon na trop aussi sénégalais taxaw na ñii la ñu tànn ñii la ñu wóolu pour denk leen réew mi pour ñu soppi xar kanamu réew mi. et que tey logique boobu su continuer ça veut dire que aussi ñoom la ñuy jox majorité assemblée. Mm-hmm. pour que ñu mën a liggéey correctement parce que ce qu'on a constaté ñu bëgg ñu bañ ko tey ji assemblée bi ñu gis. te ñu mm-hmm. tas ko. ah ñi nga xam ne ñu ngi koy opposé au Sénégal. man jàpp naa ne du opposition boo xam ne bu mature la. du opposition boo xam ne tey dina mën a collaborer étroitement avec législatif pour pouvoir am liggéey bi ñu soxla. parce que tey bu ñu leen joxul majorité rek dina am yéex-yéex ci liggéey bi te bu yéexee amee rek. lii nga xam ne sénégalais sas nañ leen ko dafay mhm. difficile mhm. pour ñu man ko atteindre ci délai yi ñu bëgg mhm. donc ñu une obligation aujourd'hui de donner une majorité confortable à au tenant du pouvoir pour pouvoir quand même bien exercer li nga xam ne mooy programme transformation Sénégal. tout à fait bu ñu taxawee ci liste bi nga xam ne gis nañ ko surtout du côté euh, du parti PASTEF ñu gis ci yenn ci ay tête ku ci mel ni maman ami Dia gisoon nañ li mu subir ci ay jamono tey buñ ko gisee ci liste bi Pastef investir investir ko ndax euh, dañu ci am mberteel wala c'est quelque chose boo xamante ni c'est tout à fait normal. bon pour man jàpp naa ne c'est normal. Mm. Pastef est un parti politique et que Pastef aujourd'hui part aux élections mm. donc euh, liste moom xam na ses composantes. Mm-hmm. ax ah, nan la leen di placer ci liste bi. Mm. donc je crois que tey euh, li am importance rek mooy que. Mm-hmm. que les Sénégalais perçoivent message. Mm parce que je crois que ça a été très clair cette sélection. ils ne mhm. veulent pas aller en coalition c'est normal. Mhm. parce que d'habitude les coalitions après man nga gis ay trahison ci biir. Mhm. député yoo xam ne dañuy la fa indi. dañuy jël beneen orientation. et aujourd'hui qu'on le veuille si on veut vraiment travailler ni ko sénégalais yi sase tey il faut que tey Pastef moo am ay député Pastef yoo xam ne dañuy toog à l'hémicycle pour pouvoir def continuité bi ma la wax. raison de plus uh-huh. ils ont fait euh, liste bu baax bu bien mm-hmm. parce que je l'ai un peu parcouru tout à l'heure et je vois que mm-hmm. avec cette équipe là à l'assemblée on peut produire de bonnes choses mais profil bi quand même am na ci solo parce que bu ñu xoolee quatorzième législature bu ñu génn li doon xew à l'assemblée nationale nekkoon na ay images yoo xamante ni bu ñu koy gis à travers le monde lu ñaaw la donc mm-hmm. tey ji euh, loolu war na tax ñu gën a xool ban assemblée la ñu bëgg wala sax moom la ñu bëggal peuple sénégalais surtout ñi nga xamante ni ñoo fi nekk comme on dit on gouverne avec les coudes solides mm-hmm. donc tey ji war nañ xool bu baax ban façon assemblée lañ bëgg à travers profil yi nga xam ni moom la ñuy investir mais li ma gis li ma lire je crois qu'il y a plusieurs profils dans plusieurs secteurs mm-hmm. d'activité c'est important euh, li nga wax dëgg la l'Assemblée nationale les députés suñu miroir lañ ils mhm. effectivement l'image écornée ne même du Sénégal li ñu gisoon ci assemblée moo tax ñu mhm. gaaw ko tas mhm. parce que amul woon benn efficience et mënul woon produit loo xam ne tey dina doon njëriñu sénégal yi parce que ña sa nekkoon ils se regardaient anciens de faïence di xeex il ne s'occupe plus de l'intérêt du peuple lui mhm. leen fa dugal mais il s'occupe plus des intérêts crypto personnels mhm. espérant que loolu du am et je crois que le mhm. message est dit hein, par le peuple sénégalais loolu du am on aura des députés à la hauteur parce que mooy li ma wax rek si aujourd'hui on veut que liggéey bi jaar yoon il faut pas ñu juum dans le choix gis nga nag opposants yi ñu ngi def lu ñu man pour yàq xelu nit ñi yàqu xelu ndaw yi di jël des couches couches vulnérables lu mel ni ñi di cag-cag émigration clandestine di mel ni euh, ambulants yi dina mm-hmm. jéem a instrumentaliser bay instrumentaliser li nga xam ne mooy nawet bi ndox mi mm-hmm. inondation yi nga xam ne loolu lépp héritage la boo xam ne bu waxee dëgg rek ay la yeween lu ñu fi fekk la war ko corriger mm-hmm. et loolu pour ñu mën ko corriger nag il faut que tey jii ñu jox quand même les pleins pouvoirs ci assemblée pour ñu bañ a vivre yi nga xam ne ñu ngi koy vivre. parce que liste yi ma gis yëpp ay liste mer ngem bu bari na ci. ay liste ñoo xam ne dañu bëgg jël seen revanche. bari na ci et loolu bu fekkee ne moo dugg assemblée lu pire li amoon moo fi nekk. comme yan liste par exemple. mais ñu ngi gis rek gis nga mm-hmm. tey jii lu mel ni euh, PDS àndax APR. Mm-hmm. loolu kenn mosu ko xalaat ci àddina. te même sax je di dit un ñu takkine leen ne leen même seen infographe bi ak ni ngeen defee seen logo bi baaxul. Mm-hmm. parce gis naa tey ñu jël. Euh, fas bi du ko def ko mboq mi mhm. te rapidement fas bi day lekk mboq mi te gis mhm. naa ko seen liste mhm. <laughs> l'APR boo xoolee ce sont les couleurs de l'APR qui qui qui qui reflètent sur cette cette coalition c'est pour vous dire rek c'est ils poursuivent des intérêts égoïstes du peuple sénégalais moo leen intéressé parce que tey yaakaar naa boo defee douze ans cim réew ñeneen ñëwaat def douze ans sénégalais yi sanctionné leen ça veut que ni ngeen taxawoon baaxul j'avais toujours dilapidé le ressources de ce pays ba tey Sénégal mu ngi ci ay difficultés. Mhm. tey ñëpp xam na ne tey jii ñooñu seen bopp moo leen yitteel parce que moo tax ñoom ñu booloo c'est des coalitions contre nature que mhm. personne n'aurait imaginé par rapport à ñoom ñaar seeni mhm. parcours politique et c'est très dommage et je crois que les Sénégalais ont lu le message ils ont décrypté que ces gens-là en réalité ils sont obnubilés par l'existence politique mm -hmm. ils sont obnubilés par le pouvoir et loolu je crois que dina leer après boo mhm. jëlee yeneen coalition aussi da gis ne ñoo xam ne ils sont tellement incohérents mm -hmm. même dans leur démarche alors ñooñu est-ce que am nañ chance pour réussir li nga xam ni moom la ñu soobu alors non je dis mm. encore une fois il faut donner la bonne information. Mm. je crois que les sénégalais xam nañ ñi leen di nax. ah ñi taxaw tey parce que wane nañ ko sacrifier seen bopp pour. réew mi ñu téye ko pour ñu soppi ko parce que avec moult difficulté. avant ces élections présidentielles le Sénégal était sans dessous. dessus et tout le monde a constaté ça. Mm-hmm. maintenant. l'onction est donnée au peuple c'est le peuple qui décide mhm. et le peuple a très bien compris parce que dañ leen éveillé pendant des années ñu dugg ci àll bi di wax ak ñoom mhm. maintenant li am solo rek mooy que wax naa ko waxaat ko si aujourd'hui on veut travailler ce pays là il mhm. faut une majorité parce que on n'a pas encore une opposition mature une opposition qui vise l'intérêt du peuple mais on a une opposition qui va se battre suivant des personnes kon li ñuy gis jamono ji du opposition non du opposition. non mm-hmm. man dëgg boo jëlee benn pàcc bi. Mm-hmm. ñi ma tuddee les néopoliticards. Mm-hmm. mooy ñu bees ñi doog a juddu nga xam ne ñun ñoo bokkoon vingt 24 toog di nas di nojji di xeex régime bi si ne. donc en deux mois un mois nga gis ñenn ñi taxaw xeex. li nga xam ne ñun ñoo ko doon bokk di ko wax di ko nas di ko nojji. pour jëlee fi nii fi nekkoon nekkoon ay anti système. donc soo gisee ne ñooñu tey ñooy boolu seen bopp tey. pour contrer nguur gi fi ne nga xam ne ñoom en réalité du seen i propre intérêt égoïste leen. nekkaloon ci kuréel lu mel ni. mais opposition bi ngay wax suñ koy méngalee ak bi ñu daan gis à travers la personne de Ousmane Sonko mm. est-ce que tey dina yomb ñu gisaat loolu. pas du tout. Mm. cest dire le contexte ne s'y pas et les méthodes ne sont pas adaptées. Mm-hmm. ci fi ñu toll nii en réalité Ousmane Sonko boo xoolee le PASTEF euh, état daf leen tàncoon. Mm-hmm. comme ni mu tànc sax ñu mel nii ñun fi ma ne woon gëm suba et cetera état daf ñu tàncoon carrément mm-hmm. mais dafa gënoon a doy waar ci li nga xam ne mooy Pastef mm-hmm. et gis nañ tey ils étaient obligés de se rebiffer mm-hmm. taxaw xeex pour seen survie c'est différent aujourd'hui c'est pas la même configuration c'est pas le même contexte politique ñi nga xam ne ñu ngi tey di jéem a sonko sonkol wala di def yooyu ils n'ont même pas l'appareil bi nga xam ne moo leen di may lool ils n'ont pas euh, nu ma structuration bi parce que gis nañ ne xeexu Pastef c'est porté par les jeunes. Mhm. ñi fi toog di wax yëpp. Mhm. mënuñu la rassembler fukki jeunes. Mhm. moo tax ils sa targuent tout le temps sur des conférences de presse. donc loolu la c'est pas la même configuration c'est pas la le contexte ne est pas là-bas c'était il faut se battre pour survivre soit se battre au prix de l'existence soit disparaître parce que état à force mu ngi lay tànc par contre c'est pas le cas aujourd'hui mhm. aujourd'hui ces néopoliticards là keño yi nga xam ne ñoo war a liggéey réew mi mhm. parce que ñoo doon nas ñoo doon nootinoo nekk ci benn table di xeex liñ doon ñaan F24 mooy que benn candidat antisystème gagné réew mi mhm. su ko yàlla dogalee nag je crois que pour constance cohérence dañ leen war a jàppale bu fekkee ne c'est pas le moi qui domine en nous et li ñu gis mooy que c'est le mois su ma bokk rek du baax. Mm-hmm. su ma bokk rek dama ciy def xajam dama ciy def ay cere di indi ay mm-hmm. argument yoo xam ne cere dama ci def suuf suuf si cere ji. Mm-hmm. indi ay argument fallacieux yoo xam ne. nit ñi ñu ko dégg. Mhm. mënuñu ko comprendre. c'est ça euh, euh, ba tey ci liste yi la ñuy des euh, gis nañ kii di baax Barthélémy Dias keroog annoncé nañ ni moom mooy tëdd liste bu coalition sàmm sa kàddu ñu gis ci ñenn ku ci mel ni ki nga xam ni moo di Pape Djibril Fall Bougane Gueye Dany ak yeneen ñoo xamante ni ay ténor lañ ci politique disons. tey bu ñu entre guillemets voilà. ay ay lañ ci politique tey bu ñu gisee moom Barthélémy Dias fan yi ñu génn. ñu ngi doon wax euh, lu jëm ci wàllum inéligibilité am maanaam bokkam ci élect ndax day bokk wala du bokk mën na bokk am déet donc tey bu ñu gisee mu nekk tête de liste moom Barthélémy Dias te moom moo taxawoon foofu ci assemblée nationale di wax ci lu jëm ci inéligibilité am moom ci kanamu kii di euh, ancienne ministre de la justice di Aïssata Tall Sall donc tey loolu ban appréciation nga ciy def gay l'original bon mm, mënuma wax ne 41 list yu ñu yu taxaw pour l'instant bu fekkee ne ñoom ñu ngi ci ça dikk dire que tey DGE def nañ seen liggéey même sur le plan juridique bu mhm. fekkee ne ñu ngi ci donc day dem élection mhm. waaw donc loolu laa ci mën a wax mais bu fekkee newu ci aussi am na yeneen yu leen di laaj ça veut dire que sàmm sa kàddu yee donc donc donc si c'est validé par la DGE donc amul amul polémique sur ce coup non il faut qu'on évite ces polémiques là mhm. ça ne nous amène nulle part et réellement in fine dafay tardel Sénégal aujourd'hui il y a yoo xam ne ñu ngi fi toog pour saytu élection yi si DG valide cette candidature là il faut aller aux élections mhm. man loolu laa gëm parce que nag maître jeu bi yëpp décideur bi c'est le peuple sénégalais tout à fait donc je crois que cette question normalement mhm. euh, doit être derrière nous dès mhm. l'instant que euh, la liste est validée bien Barthélémy Diaz ira aux élections ça ça ne pose pas de problème très bien beneen liste itam mooy takku wàllu ñu gis kii di euh, le président sortant Macky Sall moom moo ko jiite lii la waral mu euh, démissionné ci poste bi nga xam ni amoon na ko mu nekkoon foofu ca 4P tey ñuy xaar Macky Sall ñëw battre campagne moom mu fi nekkoon ancien président comme je l'ai dit te itam ñuy njortu ni am na yenn yoo xam ni ñu ngi ko koy toppee euh, ci li nga xamante ni moo fi jotoon xew pendant ces douze ans yi nga xamante ni def na ko fi tey Macky Sall ñëw battre campagne face à ce régime euh, face à ses opposants yi nga xamante ni euh, jàpp nañ ne ay opposants lañ loolu nan lañ ko mën a xaaree fii ci Sénégal. ah mais on est dans un pays démocratique. Mm.